asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mi ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziar te di leen ñaan bu dee ku bees nga nga abonné ci chaîne bi danga nga bës cloche de notification bi bu ko defee vidéo bi dugal rek incha allah nga bokk ci ñi koy njëkk a jot waaye tey mbokk yi dañoo indi woon benn leeral gu ndaw goo xam ne nii ci Aboubacar Siddiq lañ ko jëlee yàlla na yàlla suñu borom gërëm ko benn bis dafa mas a laaj yonent bi alayhi pour mu jox ko benn ñaan goo xamante ne nii da koy ñaan saa yoo xam ne nii daa nekk ci biir ak julleem di julli ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam joxe benn ñaan muy ñaan gi nekk ci écran ñu koy bëgg a tudd ya allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaxfiru dunuba illa ant faxfir li maxfiratan min wa warxam ni innaka anta alxafuru rahim ñaan gi limi tek mbokk yi moy mo yow yalla sama borom tabaraka wa taala togn na sama bop ak togn gu mag te duma jéggul sama bakkar ku dul yow kon jéggal ma ak jéggal go xamanteni ni mi nga tukkee ci yow da nga yërem ma ndax yow yaay ki nga xamanteni ya aji yërëme ji yaa aji kon ci mbokk yi li nekkon benn ñaan gu am solo go xamni abou bakkar Siddiq lako yentiba alayhi salatu wassalam jox kon nañ ko partager bu baax ndax ñëpp jot ci képp kuy jullit ñu ngi leen jox di daje ba beneen vidéo wasalaamaaleykum wa rahmatullah